asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen émission Kouthia Show tey nag di bés boo xam ne ñun ñëpp dañu am mbégte ndax àllarba la di bés boo xam ne mooy le 4 février 2015 mbokk yi nag fu ñu fas la jëm mooy tey nag ñëw ci Abdoulaye. Daouda Diallo bi araftu maître Abdoulaye Wade ne moom da bett te li tax mu bett ko mooy fa mu ko doon xaar ñëwewul foofu Abdoulaye Wade ci boppam nag tey du ñëw waaye ma Madické ñaa nee na Ablaye Wade yebal na ko pour wax leen ban stratégie nañu jaar ba lépp ànd ak dal te duñu yàq duñu def dara noonu lay ñëwee tey ci biir émission Kouthia Show mbokk yi nag tey dinañ ñëwaat ci li nga xam ne nag moom moo gën a fës ñëw ci ki nga xam ne moom la ñëpp doon xaar ndax dina wax war a du wax mooy Cissé Lo jëmale ko ci jëf bi nga xam ne moom la Ablaye Wade jëf ndax ñoom tamit nan nañ koy dundee ci biir Kouthia Show mbokk yi Macky Sall ak Farba Ngom àndal nañu tey taxaw temm nee na nag ñoom bés bi nga xam ne nag moom la Ablaye Wade di marche ñoom tal nañu leneen lu dul taxaw di marche ak war leneen li ñu bëgg mooy Sénégal suqaliku nan la Sénégal suqaliku Farba Ngom ak Macky Sall àndal ci biir Kouthia show kon mbokk yi nag li ñuy fas yéene def mooy ànd ak yéen di leen bégal ak mbégte ak contentement ki ñuy def mooy xool attends xaaral voilà gars yi ndaanaan du jour bi xam nga kan la tey xaaral allo way way way RDC Congo way way way ça bien mais président RDC Congo sama xarit la mais mais mais mais président RDC Congo sama xarit la Koffi Olomide woo na ma depuis démb ci guddi nee na ma Kouthia si la si RDC Congo gagne nous tous les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa on va faire benn Congo mu nekk la grande xolal pays des lacs de Congo benn Congo muy nekk Pépé Kale très bien. Eh, voilà voilà voilà. nous bien merci waay. eh mon am mama ça. voilà voilà voilà voilà. nous irons ok kon merci booy booy tout à l'heure la mbokk yi ki nekkoon ci présentation bi réalisation bi ñu koy wax tonton mag feggoog ki nga xam ne mooy Pape Samba Thiam nekk ci liggéey bi moo ànd ak ci tonton mag waaye tamit toog nekk ci son bi caméraman yi tey kenn laa yor mu féete ma nday joor muy Matar Dia Malick nag moo feggoo ñaari caméra yi jàkkaarloog man gauche ak droite centrale ba Matar nekk fa mbokk yi ki nga xam ne mooy yor lumière muy tàkk mooy Leuz Baro ñu am mbégte nekk ci ambiance bi ki nga xam ne mooy Abdou ak Go tutu moo ngi nga xam ne moom mooy maquilleuse mag bi di maman ah euh, maman ma ah euh, maman ah ma ma ma maman cravate <laughs>